fi mu sooxee mooy ñi war a indi ordre euh, te yëngat ci wàllu justice ñoo ci war a taxaw ngir mbir yi jeex on a vu même bu fekkee le président de la république xam na lii xew que ni gisuñ ci taxawaay ci wàllu wi donte jàpp nga ni exécutif souvent dooleem dafay feeñ lool ci li nga xam xamante ne moo jëm ci yeneen pouvoir yi mais euh, yëglu na ci bi accident amee ci ñooñu Ousmane Sonko yi ba def jaaleem danga jàpp ni en amont waroon na taxawaay bi ci jaale nit génn àddina këyit ñu wone comme li ngay wax sànq nii souvent culture démocratique daf ñu daf ñu manqué ba ci leader yi koy incarné civilité yooyu noonu ñu war di joxante en temps de paix bu dara amul que ñu koy gis bu dee amee rek ñëpp ànd bokkandoo gisandoo et tout souvent loolu lañ gën di gis ba lecture nga ci waaw d' abord dama koy rafetlu ah bu nekkee njiiti réew mi nga xam ne moo joboote ñëpp parce que encore une fois le chef de l' état moo joboote ñëpp ñi ànd ak moom ak ñi àndul ak moom ñi ànd ak moom ak ñi maandu ci mbiram ak ñi ànd ak moom ak ñi ko contre kon su nekkee ne jaale na dañ koy rafetlu loolu hmm. mooy cëru njiiti réew mi parce que moo joboote ñëpp su réew mi baaxee moom moo ci ëppale woy parce que moom lañ ko dénk su réew mi bone ou bu jëmul kanam moom la ñuy gën a ŋàññi parce que moom la ñu dénk suñu tey ba ba beneen élection di amee maintenant autant dañuy rafetlu jaale bi mais man je veux qu'on aille plus loin ah au Sénégal xam nga lu tax hmm. euh, fii souvent bu natt yu mel noonu amee ñëppay bokk ànd loolu xam nañ ko ci Sénégal bu bakkan faatoo mais dama bëgg ñu ñu dem au de la de ça mooy nekkal ko ba nga xam ne mu nekk lu quotidien au la bu nattu amee ñu sargalante jaalewante wante loolu lu may rafetlu la. Mm. parce que réewu jullit lañ réew nit ñu yiiw lañ. dans le principe et cetera mais dañu war a fexe ba suñuy activité politique. Mm. ñu jël ay matukaay ba nga xam ne lépp jaar de manière civilisée mooy de manière démocratique. Mm. encore une fois comme ni ma ko waxee démocratie jongante la ci xalaat kon encore une fois njiiti réew mi autant maa ngi rafetlu jaale boobu mu jàll autant aussi man maa ngi koy incité. di ko ñaax. moom mi nga xam ne moom la ñu dénk destiné mm. réew mi mm. mu jël ay matukaayam pour que dans le cadre de ces activités politiques là ñu mettre à la disposition des différentes coalitions ou partis politiques mm. ay force de l'ordre ñuy encadrer seen manifestation en amont parce que jàpp naa ne bu force de l'ordre yi encadrer les manifestations des coalitions politiques waxuma ne violence du am de mais dana dana atténuer dana wàññeeku parce que leen gis li nga ni maanaam li mu jiite une coalition li mu doon président d'une coalition moo gën a am présence ci moom que chef d'état bi mu doon. waaw xam nga souvent on a ce problème là. oui nga cette question parti oui. xam nga cette question aussi du tey la commencé. avant moom muy ñëw ci nguur gi hmm. naka jekk aussi loolu fi am loolu pratique la bu fi am ci réew mi mooy dans le cadre des activités politiques l'État n'encadre pas sur le plan sécuritaire l'activité des partis d'opposition loolu du tey la commencé hmm. mais man rafetluwuma loolu parce que les forces de et de défense seen rôle mooy maintien de l'ordre prévenir même les infractions prévenir des délits prévenir des crimes mm. et dès lors qu'on est d'accord que le champ politique le champ électoral suscite de la violence jàpp naa ne warugaru état bi la mu jël ay motukaay pour encadrer ko foofu état bi daf fayit mais ça ne date pas de maintenant autre chose également je suis d'accord avec toi mm-hmm. mooy man je l'ai dit et je le redis d'accorduma un chef de l'état dirigé parti ah ci loolu dafa jaaduwul dafa xewi même dans une démocratie parce que jàpp naa ne réew mu mel ni réewu Sénégal hmm. njiitu réew mi am na lu ko doy ci xeex ak ndoolu réew mi. oui les problèmes d'éducation les problèmes de santé les problèmes économiques les problèmes d'emploi li mu yor ci liggéey doy na sëkk ñu bu ko boole mu cumuler yor di diriger parti politique man d'accord ma ci loolu la preuve depuis les années 2000 au temps de Ablaye Wade bi mu nekk dans l'opposition xeex na ko ba tey. ne koy dindi mais bi mu ñëwee wuñ ko. dindi ko. ñu yaakaaroon ne encore bu amaatee la nouvelle artisanat dañ ba léegi dañul mu wo muy wone ne am na une certaine classe politique boo xam ne sur cette li ñu doon wax bi ñu nekkee dans l'opposition gëmuñu ko. mais lu ñu ragal lu ñu ragal ba ñàkk man jàpp naa ne jàpp naa ne loolu méngootul ak démocratie méngootul ak réew mu moderne surtout que nag suñu réew mi njiitu réew mi bëri na liggéey liggéey boo xam ne war nañ ko wàññil mbiru gérer parti maintenant li ma jàpp ne moo koy indi dañu jàpp ne kon que njiitu réew mi moom mooy nommé c'est lui qui nomme aux emplois civils et politiques su retiré woo peut-être dans le fonctionnement du parti ñu jox ko keneen ki ñu koy jox peut-être du am suffisamment d'autorité pour gérer ko de telle sorte que kon que ici bu ñu la joxee pal ak fu mu mënti doon d'ailleurs c'est universel tu penses au prochain mandat dañ naan kon que dama bëggaat beneen mandat mieux vaut ma téye parti bi pour mën a mettre les militants en pour mën a perpétuer mon pouvoir peut-être looloo ko waral mais loolu yëpp li muy waral li muy wane mooy suñu démocratie des na am maturité sur certains points te loolu war nañ ci gën a liggéey pour instaurer une culture démocratique munoo munoo instaurer une démocratie te acteurs yi ñoom seen bopp amuñu culture démocratique bu wër hmm. te boo seetloo une certaine classe politique sénégalaise muy pouvoir comme opposition seen culture démocratique dafa des ah d'ailleurs culture déficit de culture démocratique boobu hmm. ñuy wane dans les partis bu ñu nekkee dans l' opposition. Mm. bu ñu nekkee au pouvoir aussi moom lañuy doxal parce que loolu la ñu tàmm doxal mooy kii jiite parti bi lu mu wax ñu ne. gonga parce que ñëpp dañuy d' accord parce que mooy fal mooy folli. Mm. à partir de ce moment là forcément dafay impacter ci doxalinu. Mm. mécanisme démocratique yi ci institution yi. te loolu gënul donte mooy jiite terewul démocratie dafa am débat. nii laa gisee. ñeneen ne man gisewuma noonu donte yaa yor réew mi donte tu es dans l'opposition aussi yow yaa jiite parti bi nit ñi war nañ à l'interne war di discuter cette absence de débat démocratique à l'interne moom mooy ñëw ba sur l'espace public de manière générale te lu gën a tardeel suñu réew mi sooxeel ko la on est toujours dans des débats de personnes alors que loolu soxalul kenn diw la ni diw mel ndam mel loolu yoonu kenn nekku ci lu ñu intéressé mooy ñi ñu dénk ak ñi bëgg a yor buñ leen jox ñi ñu dénk li ñu leen jox nan lañ koy doxale kon ci loolu lañ war a sukkandiku ci loolu war ñoo xool ni diw jaar na fee ànd naag diw nangam naag comme coow li fi judd loolu bëriwul solo li am solo mooy ñi ñu ba pare nga xam ne ñun ñoo leen dénk mooy majorité bi ñu fal leen ak fu mu mënti doon au plan local au plan territorial au sommet de l' li ñu leen dénk par rapport ak li ñu digoon bi ñu leen koy dénk hmm. fan lañ ci toll lan lañ ci jëf la ca baax ñu ne lii baax na hmm. la ca rafetul ñu rafetul kon yow ñi bëgg a ñi bëgg a jiite aussi hmm. ak gox bu mënti doon ou au sommet du pouvoir nekk dans l'opposition ñu wax ñu ñoom li ñu bëgg a jël buñ ko jëlee nan lañ koy doxale loolu la askan wi soxla. kon yow di nga jaaxle saaga wante di defante ci élection yu ñu ci ni ñu gisee ñu investir ci su maanaam DG yi a mag ci réew mi ci ci administration su ma koy wax te xam nga ni réew mi Sénégal moom bu ñuy wax financement parti politique lu tàbbi géej la. moo ne ci élection yu ñu bu fekkee ni dëggantaan xamuñu fan la koppar yi war a financer campagne yi bàyyee ko suñu trésor public dina ci souffrir. waaw xam nga Pape Ousmane li ci nekk mooy mënuñu tere ab DG mu politique moi je suis un démocrate. suñu constitution suñuy texte amul fenn fu mu teree ab DG mu politique. dès ko que suñu texte yi terewu ko DG bu mu neex nga politique. Mm. maintenant nag bay politique mm. war nga fexe ba lañ la dénk muy alalu mbooloo te nga yor ko nga bañ ko utiliser pour des activités politiques. soo ko utiliser aussi. Mm. bu ñu càmbare ni gis nga lekk nga ko dañ la war a topp ci yoon c'est ça le problème de fond. mais est-ce que finalement loolu dina aboutir. mais dans la pratique en tout cas au Sénégal dans gis nañ ay rapport OFNAC gis nañ ay yeneen rapport corps de contrôle yoo xam ne tàbbiwul fenn mu ci ay tiroir ba tey te soo defoon ndànk géej lay tàbbi hmm. autre chose également la question du financement des partis politiques hmm. depuis quand depuis les années lañ ko doon évoqué le président Wade bi mu au pouvoir ñu dugal ko suñu constitution hmm. ba tey loolu jëfewuñ ko loolu aussi ça pose un problème démocratique. Mm. ça prouve que ba tey on a un problème de culture démocratique xam nga lu ko waral. Mm. ils se disent que bu ñu joxe statut de l'opposition jox la chef de l'opposition ay moyens. financer activité parti politique on va les donner les moyens de combattre le parti au pouvoir. Ah et que bu ñu amee moyen ëllëg mën nañ jël réew mi man noonu laa ko gisee moo tax en fait ce débat là ba léegi mënul avancer. Mm. parce que gisuma loo xam ne def nañ ci constitution depuis les années 2000 ba tey mënuñ ko jëfee. ça que ça peut-être ñi nekk ko pouvoir parce que bëgguñu jox ku jigi ay moyens ñu mën a wër réew mi wax ak yi a jot ci réew alors que a permettre ñëpp ñu parce que démocratie pour njëriñu réew mi parce que fu démocratie am logiquement violence dafa war a taxu mm. Sénégal nag dañ ne état démocratique lañ te ba léegi violence baa fi kon y a problème est-ce que du loolu mooy expliquer donc war nañu le fait que maanaam li ngay wax sànq nii Euh, même le statut de chef de l'opposition am na benn moment boo xam sax agité nañ ko doon wax Idrissa Seck la avant muy dem fële euh, ca benn bokk yaakaar finalement ñu wax Ousmane Sonko jusqu'ici waxuñu te jamono jooju benn milliard lañ doon wax mu nekkoon enjeu ci kan lañ koy jox ci kii incarné chef de l'opposition est-ce que ñàkk ko jotee ñoom opposition bi te c'est consacré par la constitution mooy expliquer le fait que dernièrement on avait vu même le parti Pastef mu leen def levée de fonds lu mel noonu lu ñu encouragé la lu baax la muy am ay participation yu bàyyeekoo ci militants yi su ko defee bu ñu ko jox njiit li dina marqué rupture boobu noonu ngay wax ni dootul doon njiit li jiite parti bi rek moom mooy génne euh, euh, ci débat boobu bu ñu ko doon topp ak fi ñu ci toll jàpp nga ne c'est une bonne chose que ñu topp yoon woowu nga xam te ne Pastef rëdd na ko wala lu ñu war a encadrer la bu fekkee dañ koy jëmmal ngir que ñu ma am lisibilité bi nga wax ak transparence ci anam gi ñuy génnee koppar réew mi di ko financé ay activité politique encore fois état du Sénégal dafa war a jël motukaay li ñu suñu charte réew wax mu jëfe ko mooy on doit prendre l' état doit prendre les dispositions pour que ñu wéyal statut de l' opposition financer les partis politiques maintenant il faut l'organiser parce que dañ nekk réew moo xam ne y' plus de 300 partis politiques kon mënul nekk parce que au Sénégal activité politique entrepreneuriat politique lañ ko def liggéey lañ ko def donc il faut ñu organiser ko xool kan la ñu war a financer il faut nga am ban seuil pour ñu jox la argent jox ay nit ñu def ko seen autant on reproche à certains acteurs du parti au pouvoir ne dañuy pasar pasare réew mi mais am na ñoo xam ne aussi dans l'opposition boo leen joxee xaalis financement seen poche lañ koy def mm. mais ak ci lu mu doon nañ ko organiser encadrer ko wéyal ko la deuxième chose la question euh, des, des collectes de fonds. man jàpp naa lu méngoog démocratie la mais il faut ñu encadrer ko boo demee dans toutes les grandes démocraties France États-Unis dañuy am ay cérémonie ay soirée ay dîner pour collecter des fonds hmm. soo demee actuellement en France Zemmour ngi def ay tournée di ut nu mu financé sa campagne bu nekkee ne dina nekk candidat ci vant livrable donc loolu lu méngoog démocratie la donc loolu parti boobu Pastef def man jàpp naa ne eh, lu méngoog démocratie la mais il faut ñu organiser ko il faut ñu organiser ko encadrer ko par des lois de telle sorte que du am ay ñoo xam ne ay doxandeem lañ yéene wuñ jàmm Sénégal ou ay doxandeem yoo xam ne dañu bëgg a contrôler yenn ci njurose ou ay doxandeem yoo xam ne la dañu bëgg a perturber suñu réew hmm. loolu mun mais indi woon na fi jafe-jafe ah ci xel yi ko sur le principe waaw waaw mooy mooy arrêté doon leeral yenn yow suivre nga ko est-ce que jàppoon nga ni